bismillahi rahmaani rahim onze billahi min seytaani rahim laa xawla wala xawta illaa billahi euh, Seydi Dial Thiaw Laye citoyen sénégalais bu doon ñëw def ci votam ci jàmm ak salaam di ñaan yàlla yàlla ni mu commencé bismillahi rahmaani rahim na jeexe ci alhamdulillahi rek am bu jeexee tamit ñun ñëpp ñu àndaat ku ku mën a ku mën a jël ndam li rek ku yàlla tudd ma koy jël rek ñu ñëpp ñu àndaat liggéey te xam ne ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi incha allah. gannaaw ba nga voté lan bi ñu voté ba pare que li ñu mën a wax rek lenn la mooy que nit ñi nit ñi ñëwee ci jàmm ñu voté ci jàmm delluwaat ci jàmm te bu jeexee bu ñu waxee ne kii diw moo gagné loolu tamit mu nekk mu ne ñu def ko ci jàmm rek te xam ne ay jongante la woon ku nekk def na wax na li mu wax ci jàmm ak salaam suñ paree ñu demaat ci jàmm ak salaam parce que ku ñu dénk gox soogante ne ñii dañuy xeex ñii di xuloo mais <laughs> du avancé. mais comme que dëkk bi ñoo ko moom ñoo suñu gox yi ñoom suñu dëkk yi ñoom suñu département yi ñoom suñu ville yi ñoom suñu réew bon bu ñu paree rek ki jiitu rek niñ ko yàlla ni ko yàlla tuddal tëral rek ñu ñëpp ñu ànd rek bokk liggéey jàpp joccante xalaat ci ki ñu ne rek dañ ko fal ñëpp ñoo ko bokk ñu àndandoo liggéey ci ñu ñu ko watal ak ñi ko watul ñëpp comme ni nga ko waa ko defee daal ci ndimbalu suñu borom ak ci déggoo ci bañ xas parce que xas beeg yooyu bu jeexee rek nga rus ajoo ko daal yàlla na si yàlla fi jàmm ak sutura ak xewal